sant sëñ Touba baax na nag na mu waroon demee demeewu ko waaye ñu ngi sant bu baax nag jot nañ li suñu wërsëg. ñu ngi ci suñu gis suñu bopp moom ndànk-ndànk rek sant moom ndax ku ne fekk xam na ne moom feebar bi laal na dëkk bi waaye sant rek sant sëñ Touba liñ ci war a jot moom yàlla jotale nañu ci. laal ko parce que lañ naan gis daaw lañ gis ren parce que lañ lañ naan jaayee daaw lañuy jaay jaayee ren ba jas ba léegi dafa manqué xam nga loolu ma nekkoon jaay mais dañoo toll ci période boo xam ne instant yi bagage yëpp daanaka kii nañ ñi ngi xotti xotti nañ pare essence yi téere ci des ak yaagoon dàll yi waaw essence moom jees na surtout góol bi mooy mbase bi qualité bu baax bi waaw événement wu ren moom presque mën naa ne neex na trop parce que comme si que am na mais comme si que que ñu jaay bi ni mu daan daaw ak daaw jëy yëpp noonu la mel client yaa ngi jënd normal franchement parle jees neer waaw jees neer dox na même góol du tamit dox na mooy mbase risque bi jar 5000 loolu aussi dox na waaw bu baax a baax a baax sax jees na waaw Gold bi moo gën a dox ba du Marie moo gën a dox waaye instant bi non non non non bu dee moment Korité boobu moom gënoon na yéex waaw mais yi nii nii moom comme Corona amul quoi ñoo ngi jaay naa wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla daal yi moom mi ngi dox moom tabaski gi moom client yaa ngi ñëw ndànk xotti nañ ba pare dem nañ ci téer yi joxe ñëw yi ñi ngi ñëw ci daal yi ñi ngi ñëw ndànk moom am nañ yaakaar bu baax ne moom xale yi ñoom pare nañ pour tabaski bi moom wax dëgg yàlla ñu nit pare nañ utu leen daal yu rafet indi teg fii pour di leen xaar vraiment sant yàlla rek vraiment dox na waa gis nañ si mbopp moom xale yi ñoom xotti nañ bu baax wax dëgg yàlla jënd nañ yëre yu rafet te dinañ jënd daal yu rafet incha allah ñu ngi ñëw bu baax vraiment tabaski gi moom vraiment dox na wax dëgg yàlla sant rek dox na moom. waaw instant moom indi nañ fi daal yu rafet am nañ ay escarpins transparent am nañ fi ay dàll boo bëggee talon yu yam croisé am nañ fi itam ay dàll ak procédure nice ay talon ñaam yu rafet yu qualité.